خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا seen concours mélodie du Coran liste jigéen ñi nga xamante ne ñoo wara a bokk ci phase finale yi nii la tëddee candidate numéro un di Aïcha Dramé numéro deux di Zeynab Gueye Fatima Diallo moom mooy candidate numéro trois di Aminata Adama Coulibaly Fatima Sow, candidate numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, Sophie Sissé, numéro 9, Mouhaini Top, candidate numéro 10, Di Mariama Kamara, numéro 11, Di Ami Dramé, numéro 12, Mam numéro Fatima Amar, numéro 14, Fatou Numéro 15, Hadijatu Touré. Numéro 16, Khadijatou Sall. Numéro 17, di Maguette Sarr. numéro 18 bi nag di Kumba Soumaya Anne Fatima Zahra Ba numéro 19 numéro 20 Mam Fatou numéro di Astou Dione ak numéro 22 di Mariama Touré ñii nag moom mooy jigéen yi nga xamante ne ñooy bokk ci phase finale yi bu seen concours mélodie du Coran fii ci Tawhid TV. wa xalaqnaakum azwaajan wa ja'alnaa nawmakum subaatan wa ja'alnaa al-layla libaasan wa ja'alnaa